ñu bokk Sénégal yi ay liggéeykat lañu yu bàyyeekoo ci entreprise bu ñuy woowee Sénécor yu ndax li tax ñu toog fii ak ñoom nag ndaxte dañoo am naxar ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne moo tax ñu ñëwoon fii bëgg waxtaan ak ñun waxtaan ak Sénégal entreprise la boo xam ne Euh, ña fay liggéey góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di fay waxtu bu nekk trois cent quatre-vingts francs maanaam juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar fukki dërëm ak juróom benn ak juróom benn dërëm trois cent quatre-vingts par heure ñuy liggéey nag huit ba cinq bu dee jiwu moom huit heures ba cinq heures yi mu ngi war a dikkee trois mille quarante francs waaye li ñu si jaaxal te métti ñu mooy ñi gën a xarañ ci ñoom te bëri nañu ndaxte ay jàmbaar lañu mun nañ liggéey du premier au trente te seen payoor du egg soixante mille ñu jàpp nag ne loolu sàcc la loolu jaay doole la loolu nooteel la loolu golo di bëy baadum di la loolu rongañu baadoole di siim cere buur la tudd rongañu baadoole Sénégal di siim cere doomu Corée ndaxte coréen moo ko jiite ak groupam bi nga xam ne ay daggu sénégalais la ay dagg waaw ñoo xam ne dañoo préféré dëddu seen askan war seen askan di fen di sàcc di ràndal payooru baadoola ngir ñoom seen njëriñ ak njëriñu doomu Corée Sénégal bi loolu moo indi koor bi Corée mooy koor ñu jàpp ne ne loolu du dëgg yoon déjà par heure du dëgg du yoon dafa tuuti nooteel la jaay doole la ñu naan déet trois cent quatre-vingts par heure bi sax dañ ñu siy sàcc du premier au trente ñii di fayeeku fukki junni nii di fayeeku fukki junni bu teg waaye jafe na nga gis ku egg soixante mille francs jafe na nga gis ku egg soixante dix mille francs loolu la ñu wax ne nag du dëgg du yoon njëgu heure bi tuuti na trois cent quatre vingt francs ñaareel bi fin mois kenn du ñu fay lu mot li ci raw mooy euh, boo bu ñu lay fay weer bi bu deewee da ngay ñëw rek ñu jox la enveloppe waaw nga ubbi ñu ne la surprise du mus a mat cent mille du mus a mat quatre vingt dix mille du mus a mat mille amoo benn këyit buy firndeel ne liñ la say noonu la ndaxte entreprise bu sérieuse xanaa kay boo ñëwee tey war na am fu ñu ko bind yow mii di liggéey war nga am benn badge boo xam ne foofu lañ lay pointé même bu fekkee dañuy jam ñu ne bës bii jam nañ wala benn këyit boo xam ne d'accord benn këyit benn këyit cartonné boo xam ne bés yëpp boo ñëwee ñu cacheté wala ñu jàpp weer bu deewee daal enveloppe jox nañ ne ko nga ubbi ñu ne la quarante mille nga ubbi ñu ne la cinquante mille nga ubbi ñu ne la soixante mille. vingt ans vingt cinq ans quinze ans am na ay liggéeykat yu fa nekkoon Sénégal mosuñu gis bulletin de salaire mosuñu gis bulletin de salaire. depuis mille neuf cent quatre-vingt-trois. quatre waaw yow quatre ans am na ñoo xam ne def nañu fa dix ans quinze ans vingt ans mosuñu gis bulletin de lu dul fan yii paase ñoom ñii di ay jàmbaar ñoom ñii di ay patriote ñu yëngal ñu jox leen lii. ngeen foog ne lii bulletin de salaire lii mooy premier bulletin de salaire bu mës a am ci entreprise bi depuis mille neuf cent quatre-vingt-trois lii ngeen foog ne yoon la. ñu ne Sénégal am na ministre du travail ngeen fon ne yoon la ñu ne Sénégal am na président musuñu leen jox bulletin de salaire lu dul fan yii passé bu ñu fippoo ñu jox leen lii lii moom boo solee ay lub sax doo ko mun lii ba pare ñuy diviser pour mieux régner ñu jël ñenn jox leen ñeneen ñi ñu bàyyi leen ñu teg ko fan ñu jël ñenn ci liggéeykat yi ngir féewale leen ngir néewal doole xeex bi ñu jël ñenn ñi jox leen lii këy lii xam na Sénégal Sénégal kan ci ñun moo am bulletin de salaire bu toll nii ban fonctionnaire état du Sénégal moo nangu ñu koy jox bulletin de salaire bu mel nii inspecteur du travail bi nga xam ne c'est un fonctionnaire de du Sénégal état du Sénégal ubbil tarifa nii la koy jox kon yéen inspecteur du travail yi naka ngeen munee nangoo di seetaan ay employé ay employeur du ñu jox seen du ñu jox seen employeur du ñu jox seen employé bulletin de salaire bu ñu leen joxee yéen ñu jox daggatu kayit bi et pourtant wax ni jéego la ndaxte depuis 1983 leen jox kayitu suukar musuñu leen jox Papa Ndiaye lii guleet ñu jox leen lii lii la wax ne lii dafa war a jeex euh, li ci gën a métti mooy ñoom liggéey bu ñuy def bu ñu waxee mèche li la jarul may wax ñoom lu ñuy liggéey métti na métti boo xam ne une heure de temps pause la am mais at bu nekk seen objectif journalier de travail day daal di yokk bu ñëwee at ñu ne ok dix cartons par jour bu ñu ñëwee beneen at ñu ne douze cartons par jour bu ñu ñëwaatee beneen at ñu ne quatorze cartons par jour et pourtant payoor bi du soppeeku at bu nekk ñi jiite entreprise bi mel ni ñu yor ay mbaam di yokk lu ñuy sëf te du ñu yokk ngooñ bi ñuy jox mbaam bi te ñii du ñu ay mbaam ñi sàll dafa soxla déggin xanaa mbaam sax boo koy sëf bés bu nekk ngay yokk li nga koy sëf yokk li nga jox mu lekk mbaam te ñii duñu ay mbaam li muy wane itam mooy seen koor dafa am racisme seen koor dafa am racisme te dañoo bëgg mu dagg racisme bi dem na ba mais boo indaalee sa mbuusu beñe yow liggéeykat ndaxte liggéey bi métti na te luñ lay jox añ foofu tuuti na baaxul sa maanaam sa mbuusu bañ boobu sax pour lekk ko fuñ la gis ñu lekk ko fuñ la gis nga lekk ko ñu dàq la da ngay ci biir douche yi ci biir douche yi ngay nëbatu pour lekk sa benn bañ ngeen foog loolu yoon la am pour lekk si biir entreprise bi lump benn bañ continuer sa liggéey loolu sax dañ lay tongale ci biir entreprise bi buñ la jàppee ñu dàq la. ngay obligé di dem nëbatu di sàkketu ci wanag ba pour mun lekk waaw amul fontaine fontaine pour naan amu fa huit heures ba dix-sept heures daanaka ñu bëri sax duñ ko liggéey ndaxte huit heures ba vingt heures la heure forcé amul fontaine fi ngay naanee fan la ñuy naanee ci biir douche yi ngeen fonne yoon la mais Sénégal nekk fi laa dum moo gën nekk fi ouvrier maanaam Sénégal Linda ndaxte laadum du naan ndoxu douche te te laadum kenn du ko sëf et bés bu nekk ñu ngi koy nabbi nabbi di ko jox lekk bu baax ñii ñu leen di sëf di yokk di yokk di yokk te ñu leen di jox ñuy lekk du yokk lu ñu leen di fay du yokk ba pare ñu naan leen bu ngeen bëggee naan dem leen ci douche bi plus de dem leen dugg bi loolu muy fii Sénégal ndax lan ñun ay nit yu ñuul lañ mais dañ ñu gën ndax coréen dañ ñu gën pour bàyyeekoo seen réew ñëw fii suñuy réew di traité nii suñu doomi réew kon bu mu jaaxal kenn bu ñenn ci ñoom bu ñu tokkiwee jël gaal gi kenn ñenn ci ñoom bu ñu tokkiwee ñu jël désert du Sahara naan la ñu jubali Barça lii mooy wax ci trois cent quatre-vingts francs par heure mais loolu jaam la esclavage la ba pare ñu naan déet ñu la koy fay lu mat liñ la war a fay compal la si jox la compal loolu ñu wax ne kon euh, dafa war a ba pare non seulement dañoo raciste te wax naa lan moo tax ñu raciste te ñu ngi wax ministre du travail ak inspecteur du travail ñu jóg ci yooyu yëpp heure bi dafa tuuti ba pare dañuy sàcc joxuñu ñu bulletin de salaire dañoo bëgg ñëpp am bulletin de salaire ñu naan déet une heure de temps de pause par jour weeru koor ñu ñëw ne trente minutes maanaam amuñu respect ci suñu weeru koor lan moo tax ñu koy wàññi xanaa pause du pause. xanaa weeru koor sax nga war a gën a am pause ndaxte yaa ngi liggéey ba pare lekkoo liggéey bi métti na na boo xam ne munoo xëy ba wàcc te gaañu wuloo waaye boo gaañoo kenn du la toppatoo kenn du la lijjanti amul prime de savon amul prime de salissure amul dara amul prime de transport amul prime de risque amul tous 380 francs par heure xaw ma ak 520 francs pour heure supplémentaire 525 pour heure supplémentaire loolu la ñu waxoon ne dafa war a jeex liggéey bi métti na métti na boo xam ne ba pause une heure de temps sax muy góor muy jigéen duñ ko jël ci pause yi la jigéen yi surtout ak même góor yi di profito lu ñu jël seen pause ngir mun atteindre seen objectif journalier de quatorze cartons wala douze cartons ak ñoom seen waaw ba pare nag. ngir ngir gën a am ñoom bénéfice altine bu nekk ajjuma bu nekk ñu jël ay apprentis yu bees yu ñuy fay deux mille francs par jour au lieu par jour yi nga xam ne sax dafa tuuti dafa ñàkk fay la te duñ leen ko fay loolu sax dañ leen ko soxalee loolu sax dafa bëri ngir wàññi ko ñoom gën a yokk ñoom seen bénéfice ñoom coréen yi ak seen date sénégalais yi altine bu nekk ak ajjuma bu nekk ñu ne dañuy jël téeméeri apprenti bu ñu jëlee téeméeri apprenti ñu ne yéen téeméeri liggéeykat daf leen toog nopp lu ba semaine bii di ñëw léegi téeméeri liggéeykat yooyu ñu leen di fay deux mille francs par jour donc chaque jour ñu def mille quarante francs bénéfice multiplié ko par cent multiplié ko par sept jours boo ko jëlee ci benn semaine ngir rek duufal ñoom seen bénéfice mais ñu ngàcc ko ci ndodd liggéeykat yi mooy li ma doon wax sànq golo di béy baaxul ci dundee mooy li ma doon wax sànq rongañu ouvrier sénégalais di siim cere coréen rongañu ouvrier ak ouvrière bu Sénégal di siim cere sénégalais yi gën xeet yooyu. di jaamu coréen yi d'accord euh, di am ak ñoom ngir noot li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy euh, doomu Sénégal yi fi liggéey ñi nga xam ne soixante-treize ans ñi nga xam ne ñoom ñoo jëkkoon xeex mbir mi bi ñu yëkkatee xeex bi juróom-ñaar fukk ñett dañ leen tax ay dix yàgg na biñ leen euh, xeex bu njëkk bi nga xam ne moo fa am gars yi dañ leen dàq mooy soixante-treize yi may wax dégg naa itam far naa ci wewu bi njëkk yi njëkk bi bi ñu leen dàqee dañoo toog dix ans avant sax nekkinu liggéeykat yi muy xaw a soppeeku tuuti kon ñooñu ñoom dañoo foog ne ñoom Sénégal du réewu droit du réewu sañ-sañ kon ñu ngi interpellé ministre du travail ñu ngi interpellé président Macky Sall ñu ngi interpellé inspecteur du travail ndaxte ñun waa FRAPP mënuñu toog seetaan ñuy noot ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal réew mi ñu ay nit ñu ni ñun di ay sénégalais ni ñun ñu leen di noot fii ci suñu réew waaw fii mooy Sénégal fii mooy Dakar fii du Corée fii mooy Sénégal fii mooy Dakar. li ñuy wax mooy bés ni ki nañu jox bulletin de salaire ñëpp trois cent quatre-vingts francs par heure yi dafa tuuti nañ ko yokk cinq cent vingt-cinq francs heure supplémentaire yi nañ ko yokk ba pare nañu gën a respecter ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, liggéeykat am na nag ay syndicat yi nekk ci seen koor ah ñu leen di ñaax ñu def seen liggéey ndaxte bu ñu waxee syndicat ba liggéeykat di fa cotiser li ñu xaar mooy nga taxawu liggéeykat yi nga taxawu membre yi par nga sës rek.